mbokki internet yu Hann TV yëpp di len féliciter di len leen jaajëfal di len massa aussi ci mbass mi nga xamni ci remene rew ma len ni maa di len ziar bu baax baax ñu bëggona xam rek monsieur Matar Dia lan mo nekk sa gis-gis euh, ci coronavirus bi bi tambalé ba légui waaw coronavirus bi dafa xam nga li wolof di wax loola bét man la dafa bét ñëpp bét rew yi nga xamni ci ñoo gëna mag ci aduna bi parce que dans l'histoire bu fekkee amna na yu nga xam wax dëgg yalla fekkee wuñu ko mais jang nañ ko ci taarix ni amna pratiquement quatre siècles yu nga xam ne xawma 3 depuis 1720, 1820, 1920, 2020, chaque siècle pratiquement amna ben mbass mu nga xam si si fay lëmbee aduna bi yëpp amona fi luñuy wax grippe espagnole mhm. amona luñuy wax choléra amona fi luñuy wax ah kii maladie yu bare mhm. mais mbass mi mom da fa lu luñuy wax coronavirus nek lu lu nga c'est dafa pratiquement si vous revue les documentaire effectivement février février, continent balaa muy continent vous un an ou six mois mhm. mais mars, Chine un mois et demi pour dans le continent européen mhm. après dans le continent américain L'Afrique a wër le bi yëpp février, ko feebar la jusqu'à présent, vaccin mais de femmes nous aussi organisation mondiale de la santé vraiment profite de cette occasion aussi aussi di corps médical Le corps médical au Sénégal corps médical à bi bon vraiment au CETAM, le président de la république l'État, le gouvernement la collectivité locale nous sommes mieux ñu nous. mais li ci poste solo amener nit à ce que nous respecter les barrières les mesures de sécurité les gestes barrières Respectez-les, parce que nous comme

mooy distanciation sociale mooy gestes yi ma wax tout à l'heure mais aussi tam affaire bi commencé ko ci biir kër gi parce que man dafa am lu nga xam ne dafa melni dafa xaw dess sama xel parce que bo démé ci biir kër yi damay toog samay dom toog sama njabot pratiquement amul benn distance bu ñu respecté ñu ci bare respecté wu ñu alors que loolu moy lancer appel affaire bi dañ ko war commencé ci biir kër gi aussi am am na lu ñuy wax lu nga xam ci les conditions d'hygiène conditions d'hygiène yi muy conditions yu nga xam ci dañ ko war a respecté ndox yu salté yi war a taxawaalu ustensiles yi war nañ ko nettoyer ba mu set dem ci place yi nga xamni ci les grands grandes places yi nga xamni ci ou bien les établissements recevant du public mhm. yoy aussi itam ñu fexé nañ leen désinfecter mhm. mais aussi organiser entrée bi ak sortie bi par exemple lu melne na quai de pêche de anne dañu jël ay mesures yi nga xam ci pendant une semaine dañ ko tëj mhm. dem na sax yaakaar naa ba am 11 jours ñu jël marché yi nga xam ne si dañ leen tëj tout à l'heure comme ni ñu ko liiree sous le préfet du département de Dakar nous a salué, nous nuyu beaucoup. remercier parce que tous les marchés de Dakar le week-end c'est aussi c'est un acte extrêmement fort Nous avons parce que nous bëgg a indil nit ñi ay problème déedéet dañ ko tout simplement parce que nous avons nit ñi Nous dañu prévenir parce que fagaru moo gën faju am na li nga xam ce aussi itam dañ koy gis bu ñu couvre-feu ñu ni nañu état d'urgence vraiment état d'urgence neexul kenn couvre-feu neexul kenn mais ku ñàkk ku amul pexe loolu rek moo doon pexe moo état du Sénégal jël ko ñun nag collectivité locale dañ ko bëgg a jàppale si loolu ba mu mat sëkk sëkk sëkk am na nag yeneen yu nga xam si ku wax loolu tere nit ñi ni leen bu leen def li il faut nga indi ay mesures d'accompagnement loolu moom aussi daañu si ñëwaat ci kanam mm-hmm. donc ci mesure d'accompagnement yooyu la ñuy wax parce que nit yaakaar naa boo ko teree dara war nga ko faa tegal leneen loo xamante ni dina ci mën a euh, sukkandiku pour mën a bañ a def loolu waaw président de la république dafa gouvernement l'Assemblée assemblée nationale de nous autoriser que pendant trois mois moi pouvoir de décision sur marché yi fu daan pratiquement d'autorité d'EFCO. 1000 milliards du mais aussi avons demandé à ce que entreprise nationale yëpp les bonnes volontés ku nekk participer un geste important Nous avons aussi des denrées alimentaires que population sénégalaise. Nous aussi collectivités locales nous aussi la même chose la plupart des collectivités locales ont aussi nous affaire population bi ci alimentaire parce que nous ñi effectivement Sénégal du pays développé ba tax aussi nous nit parce que nous sommes nekk da ngay Nous daan surtout jigéen ñi mais rendre hommage tout le temps comme tu le dis la femme sénégalaise parce que pourquoi la plupart boo demee fii ci quai de pêche an boo demee si marché yi jigéen ñi ngay fekk góor ñi ñu si bari retraité nañu mais jigéen ñooñu di daan doole pour dundal xale yi kon ñooñu nan la ñuy def loolu moo tax alimentaire yi lu am solo mais je pense bien que ñu bañ ko ñu bañ mu bañ quelque chose ñu lu affecte ñu par exemple ñu passionné débat bi parce que mooy lan mbas mi kenn xamagul kañ lay jeex il faut ñu dem ci ak xel il faut ñu dem si ak prudence

waaw loolu aussi si continuité xex buñuy xex jangoro bi la. Mm-hmm. parce que effectivement bu jangoro bi commencé monsieur le maire la ñuy wax pouvoir de police du maire de Anbelair Bel-Air conseil municipal woteloon na ko budget. budget boobu mënon na utiliser lu mot 25 20 vingt vingt ba 25 millions. gënd ci ay d'abord des produits produits yu nga xamné ne si ko war corps médical bi d'abord lu ñu wara protéger. Mm-hmm. jappalé len je salue aussi la presse locale vraiment ci turu monsieur le maire à conseil municipal di leen féliciter bu Je félicite croix rouge locale bu Anne Bel-Air di féliciter CRAP bi nga xam ne mu nekk Hann Bel-Air di féliciter organisation parce que ñoom ñëpp dañu de si xeex bi ku 1 indi sa un franc ñu indi seen cent francs, ñoom ñëpp ñu participer presse bi presque dañ ko mettre à la disposition de l'autorité locale pour que ñu mën ñu jàppale si combat C'est loolu aussi du ku xam presse ku xam exigence am vraiment bu demee ba top ci combat bi tout le temps fuñu taxaw ñu def ko ñu jël mesure yoy buñu paré barki bërki ñu waté wat 180 millions si budget bi renforcer le budget budget bi lu tax ñu renforcer ko lool aussi tam ci corps ñu indi ko si secours aux indigents indi ko muy 180 millions bu féké presque 25 millions day nekk 200 et quelques millions yoy nak aussi ñu bëgg ko jëndee lu ñu wax kit kit bobu dina am saku ceeb dina am diwlin dina am date dina am café dina am kii ce qui veut dire que les sekene et les Ngéyeen ne vont pas vraiment euh, se plaindre parce que le yëpp daañu ko def et plus de 3500 kits daañu ko def plus li fi état bi indi 6527 96 kits je pense bien que dina am lu mu jë dina am lu en tout cas commune en Bel-Air pareegul si loolu. parce que loolu aussi itam dañu nañ ko de manière perlée xamuñu mbas mi kañ mais n'empêche contrairement aux autres communes ñun suñu secours tabaski suñu secours suñu secours Pâques suñu yeneen secours yi ñu wan daan def pour dimbali indigents yi. Le public dañ ko intact parce que le vraiment maire de wax le conseil municipal il ñu né renforcer cela veut tout simplement dire que la mairie de Hann continuera à fonctionner comme nous avons fonctionné fonctionner et benn problème de am donc c'est la raison pour laquelle je tiens à rendre hommage au conseil municipal de Belair, mais surtout à monsieur le maire Babacar Meng qui a été un excellent manager parce que xëccoowul deful précipitation te aussi précipitations mangi tek affaire yi en tout cas nous aussi nous allons veiller au grève pour permettre aux populations aussi d'en bénéficier autant que faire se peut Le bi may terminer problème au marché Le problème au marché aussi je pense bien que c'est la problématique de la gestion des déchets des déchets municipaux des déchets urbains parce que marché le week-end passé nous avons un marché en pêcheur Vous ngeen nous nous ko nettoyé gis ngeen ay tonne tonne mbalit yi on va vers la création la mise sur pied des comités de gestion des comités de salubrité pardon comité de salubrité parce que nous renforçons renforcé les renforcer et mode de permettre aux jeunes parce que la plupart des jeunes qui sont dans les marchés disent que marché est un mag rek ñoo sont yor mag presque mais les dañuy renforcer les ñooñu mettre une équipe sur place pour nettoyer pour permettre vraiment les gens de respecter les gestes barrières aujourd'hui à un Village nous à Village remercier aussi les sapeurs-pompiers donc nous travaillons en parfaite intelligence avec les services de l'État parce que vraiment samedi passé le ministre de l'urbanisme était là-bas Vraiment, nous saluons au passage parce que tout ce qui est encombrement, désencombrement, c'est lui qui, a, en a la charge. a appelé le maire de tant nous avons Nous la fameuse baie d'Anne, mu l'instruction instruction directeur général UCG notre ami Mastiam pour que nous aussitôt ñu disposition de xam accompagner pour le nettoyage de la baie parce que le grand projet de la dépollution de la baie de jusqu'à présent ne prend pas en compte les déchets solides c'est la raison pour laquelle monsieur le maire c'est carrément avec ñun conseil municipal nous ñu fexe à partenaires à commencer par l'État et les partenaires étrangers pour qu'on puisse vraiment nettoyer la baie et demander à son excellence le président de la République encore un cri de cœur que l'environnement, les environnementalistes, les écologistes et l'ensemble de la population de anne vous demandent quand est-ce que notre projet de dépollution va le démarrer. Parce que nous l'attendons et nous vous remercions pour les différentes démarches, mais ça tarde à démarrer et ça risque d'impacter négativement sur notre économie, sur nos conditions de vie est-ce que plan yoy ngeen tek pour Dan corona est-ce que y a ngi def qui xamante dina am suivi pour mu gëna am solo. waaw parce que plan yi effectivement man mi y a ce qu'on appelle le comité communal de ciblage bi nga a le si maire daf ko créer conseillers municipal organisation communautaire de base ñëpp nga ci maire jël ko ci mbaxam pour me superviser bu len gissé suñu mbokk yi dajé fi fiñu dajé ça c'est le sous comité de ciblage de Village qui regroupe trois quartiers trois quartiers les li nga xam si ñoom ñooy dem cibler ménage yi ñooy le nombre de ménage ménage bu savez nekk ñu dugg ñu ménage bu si nekk ñu jox la li nga xam ça c'est pour le kit de l'État par contre le kit de la commune dañuy tànn aussi le nombre de maisons xam nañu ñaata maison là Hann Village am tey aujourd'hui 400 maisons maison bu nekk ñu jël fa dugal dugal ben kit et là comme ni nga ko waxee mooy li ma la doon wax sànq rek jël dès le départ avec effet d'annonce jël ni ah mairie Hann Belair air dafay def 300 millions mais 300 millions ils m'ont passé un passé un mois alors que mbas bi maa France ba 23 juillet presque affaire de le fa dans les grandes puissances ñu avons presque tenu nañu école au mois de septembre donc qu'est-ce que cela veut dire cela veut tout simplement dire qu'il faut avoir des capacités managériales et de planification il permettent permettre vraiment d'assurer le suivi parce que diminuer les tey bu subaa problème mais encore une fois ce qui est li gën am Bel-Air prise en charge médicale là pratiquement à 90 pour commune bi dañ ko assuré jàppale nit ñi boo demee remercier le vraiment vraiment le président de la commission sociale à chaque fois boo demain. ay toog qui bi yëpp yóbbul ko nit ñi jarul parce que feebaru d'amour kenn du ko publicité. Boule parce que si le dossier médical est bien ficelé dañ koy def ce qui veut dire tout simplement daañu dimbali nit ñi mais la mairie continue à marcher à fonctionner. parce que nos différents projets aussi vont continuer à être qui on va lancer d'autres projets Le Melna Dara moderne le Melna aussi. Qui yu nga xam si dañ koy def maison de l'hôte maison du maison maison du kër mool au niveau de au niveau de Yarax Tefas si waalo gi lu wax aussi itam box yi pour assurer la sécurité parce que bidon instance yi dañ ko daan jël di ko ci biir yi problème c'est insécurité bu tëy léegi la mairie est en train de régler tout ça jërë jëf merci voilà mbokk xarit yi fii la ñu yem ak yéen ci seen émission sunu environnement di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi di ko jaajëfal également moom monsieur Matar Dior ci disponibilité bi di leen jox dig daje très prochainement pour seen beneen numéro sunu environnement di leen fàttali rek ngeen gën a respecté mesures barrières yi te fu ngeen tollu di ngeen a raxasu ndox ak saabu ngir gën a mucc ci di coronavirus jërë jëf merci